أجابني خير باق فيه قد تاب كل ورى خبيما liqaad axtaaba gi leen ci bés bu tedd bi bés bu sell bi muy bés bi nga xamante ni xaadim rasul Euh, ci la demoon di liggéeyal suñu boroom muy 18 safar bi màgg lu Touba comme ni mu ko santaane at bu yàlla sàkk ñu ko koy defal bés bi nga xam ni bés bu màgg la waaye euh, bésu cant lay doon ndaxte ba muy dem di liggéeyal suñu borom leneen bés bi bu ñëwee nañ ma ko defal bésu cant cant gi euh, li ci njëkk mooy ci diglewu xaadim rasul mooy jàng alxuraan wàcce kaamin moo tax ba diwaan gi nga xam ni fi la ñu nekk muy dëkkam bi nga xam ni moo ko moomal boppam bokk suñu borom euh, kër goo dugg rek lii lañ fay def muy wàcce kaamin euh, ñaan ci yàlla euh, ñaan gi nga xam ni day dem baawaan ba fépp ci réew mi ba fépp ci àdduna bi ndaxte ay ñaan moom alxuraanul karim fuñ ko ñaanee rek lépp loo xam ni dugal nañ ko ci rek ci yiiw rek incha allahu rabbi suñu borom da koy nangu. bis bi nag borom lii ñu ciy def mooy lim ci jiital ndax moom kenn ku nekk xam na ne amul lenn lu lii muy alxuraan. ndax wax na ne amul lenn luñ koy dondoo kenn du ko dond ci alali àdduna kenn du ko dond ci lenn lu dul alxuraan wax na ne tamit kansil kitaabu wala xadiisu wala adab laa jëm xo fiddatin wala jëm xo saab nee na am ndàmbam am koomam li gën a foorti moom gën a rëy ci moom mooy alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama loolu mooy xadiis kon moom amul lenn lu dul lii faratuhu nag gis ngeen ko 18 safar bu ñu ko waxee wax nañ nit ñu jàng ci alxuraan jaamu ci yàlla waaye it bernde yi am na ci solo lool ndax it sëñ bi moo ko digle woon lu toll ci ginaar ba ci gëléem gis ngeen waa kër gi ni ñu koy defee ñu ngi bernde seen i gànn macha allah ma nekk kenn koo xam ni mu ngi woon ci waañ bi moom it euh, di defar xéewal yi moo tax tey ñu ñëw si yoor yoor bi ñu si def mucc yeeg ginaar yi pour euh, joxe ko ndékki bi te sax bi daa naaj moo tax mu demee nii. mais daal ndekki la kon daal li ndekki la. li ndekki la de añ bi ñëwagul reer yi ñëwagul lépp li ndekki bi la si ni ko sëñ bi waxee rek di gën a utaat taalibe rek li yëpp si taalibe bi la di gën a sàkku ñu ko fii gën di mën di ko gën a fekkee ñu ngeen di ko gën a mën ñu koy gën di def loolu la ñuy ñaan. barkaala macha allah fii dara jeexu altine ba nu ñëwee ba tey bëggatuñu sax yàpp ak ginaar bëggatuñu ko daf ñu sàppi barke dama ne la ñun lu ne def nañ ko. lan fi def maa ngi wax ak léegi soxna si mu ne beex yi lépp ngi fi bi ngeen ñëwee ba léegi lan ak lan ngeen. ba ñu ñëwee altine ceebu ginaar lañ ñu tegal boo xam ne palaat bu nekk ñeenti ginaar lañ ci teg tubaarkàlla macha allah talaata ceebu jën lañu togg sama mag bu baax ji moo ko togg laay moo ko togg ceebu jën bu mel ni jàmm moom la ñëpp yi coow démb tubaarkàlla macha allah ñu ana waat ak ceebu yàpp. ngoon gi ñu tegal ñu ay ginaar ginaar yi kenn mënu koo lekk dana ku ne danga doon cuqati di bàyyi. Eh, dégg naa li ngeen def nii ñu koy gis ci image yi ndekki la. waaw ndekki la añ bi ñëwagul. kon lu ngeen nawee reer bi day teel 5 heures pile reer bi ñëw. añ baa nga ne ñuy togg lii ndekki rek la ndekki rek lañ def. yàlla bi muy tàgg Fatima ak Ali ci joxe ñam rek dana wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran moo tax ñun ñu defar xéewal yi suñ kem kàttan fu ñu yam denc ñu dara dara sëñ bi mu amuñu ak fayam moo tax ñu jël lépp luñ man ñu mënul ñu def xéewal yi ngir jox ko taalibe yi nga xamee ne ñëwuñu rek lu dul euh, santale yàlla euh, Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamee ne noonu la ko digalee woon. lii leen tax a jóg muy liggéeyal yàlla ak sant sëñ Touba ñun loolu rek mooy li ñu saf ci loolu la yar. ci loolu lañ xam te loolu rek lañ bëgg kon bu ngeen ñëwee ñëw taxaw ci loolu kon ñun duñ mën a def lu muy békki ndax kër gi man man ngeen ne ñun ñoo borom kër gi waaye duñ boroom kër gi ñun surga lañ ci kër gi lépp suñ tubaab ko moom fii ñoom lu ñu am rek amuñu fi dara sax lépp suñ tubaab ko moom lu ñuy def it suñ tubaab lañ ko defal kon surga lañ ci kër gi kon yéen ñi ñëw jàpp ñu ci liggéey bi dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen taxawaay gën a yàgg lool ndaxte borom Pastef ngeen borom yar ngeen borom yi teggin ngeen li leen tax a jóg xam ngeen ko kon yàlla na leen yàlla ak Serigne Touba boole jàppale.